asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi yéen ñi ñuy déglu di seetaan dal leen jàmm seen émission Barada Cash tey ñu dalal leen suñu plateau bi ay ñoo xamante ni ñu seen xel màcc ay kàngam ñoo xamante ni seen xel ñu màcc ci wàll wi la ci loolu dañ leen di dalal euh, soxna Mbène soxna Mbène loo xam ci loolu ci góor ñi nga xam ni dañuy am soxla ba pare di mën a. jërëjëf euh, monsieur Samb maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di wax ne. góor ñi ñoo tay doxal nag mhm. ndax ki romb jigéen ñëpp ñëw takk la kooku su amul lu ko gënal du la fa bàyyi dem di seeti keneen mhm. Mhm. ci loolu nga xalaatee dégg ci loolu maa ngi jox soxna Fatou loolu loo ko ci leen mbenn wax waaw man maa ngi lay nuyu di kontaan ci daral ma daral loolu nga wax euh, ci jigéen ñi la ci jigéen ñi la waaw ndax imagine jigéen ñi jamono jii ñu toll macha allah dañoo bari imagine góor bu baax ñu fekk la bu sa kër takk la yóbbu la këram ngay nga koy dofloo wala di ko jaayu kenn amul tey dem génn doxaani. man dama cee ànd. loolu nga xalaat waaw laa ah, kon yow ak benn dafa mel ni bokk leen fu ngeen jëm de parce que moom nee na ci euh, côté góor ñi góor ñoom ñooy dem di doxaan parce que loolu wàllu doyaluñu. kon yow loolu est que yow réellement que ni jigéen ñi ñoom. non Samba ci jigéen ñi la Fouti ci jigéen ñi la. non man d'accord ma ñoom ñaar ñëpp dañu wax. parce que boo jëlee boo jëlee fët bi jox ko jigéen ñi ko jigéen ñi ah, da ngay teg jigéen ñu toog. di jël fët bi jox ko góor ñi nga jox góor ñi toog. góor di am euh, jabar dafa amul dafa war dafa amul lu mu war a am ci këram. Mhm. woo amul ko si jabar mu génn dem wuti ko. feneen non am mën nañ am li ñu bëgg seen kër. dëgg la koo xamante ne loolu la wax tout le temps loolu la wax naan góor dañoo defar dañoo amul la ñu war a am seen kër. Uh-huh. génn dem wuti ko. wax ji loolu la man dama compte ñu naan góor ñi dañoo malade dañoo feebar. est que xalaat na mais bariwul est ce que xalaatoo tamit am seen kër. est ce que xalaatoo tamit ni xale yu jigéen ñi tamit ñoom ñoo yemul fu ñu war a yem ba tax góor yi dem di doxani. non man bëgguma ne parce que am na ñoo xamante ne da nga gis cas yoo xamante ne. ñii am na ñu war a am yëpp seen kër. mais dañuy dem doxaani. ñii tamit contraire. moo tax man du ma faral ñii du ma faral. Souleymane nañu waxante dëgg nit nit rek la. góor amul dof am yow nit ku baax lu baax ñëpp ko bëgg. Mm-hmm. yow imaginé nga takk jabar pour mu satisfaire la remplir la ndax kenn matul moo talante moo tax nga dem takk jabar. Mm-hmm. sa sa sa jëkkër di la defal lépp lu war yow comme yow muy jigéen da war a def tout. Mm-hmm. ba defal ko li mu bëgg ba du génn di xool leneen ci benn. la sax man de lenn moo ma jaax Souleymane pourtant nekkul ne góor ñëpp ñooy doxaani. kon bu fekkee am na ñu takk jabar wàcc leen fa di doxaani dama sama jigéen ñi jigéen ñi ñoo war a xoolaat seen bopp mais yow ku nga xamante ni ba ne ñëpp a la la ci kër gi mayoo ko jàmm mayoo ñu ci jot a am bon moom dara dootuñ ko defati ku ci xasa am a a bëgg koo defal discours semaine bi yëpp euh. moo tax kon néegu jéeg boo ci dugg benn mer gàddoo ci suuf ku góor gi bu xamul bu gisul lu mu xam rek da koy jël dem ca saal bi mer gàddu dafa ndaw mer gàddu dafa ndaw non mer gàddu dafa ndaw. tey amul foofu te dem na loo ci kon kon kii ki moom bëgg a wax ne. kon li waral góor bi li nga xamante ne dafa am jàppal dem di doxaani. mooy maanaam. bu ñëwee toppatoo bi ñu ko war a toppatoo amu ko moo tax muy dem di doxaani. amul ko amul loolu moom côté boobu mooy defaan am na beneen côté bi tamit góor ñi defuñu li ñu war a def. li ñu war a def seen ñu jël tool bi di ko gis nga ñoo xam ne amuñu dara. ah soxna mais jabar ji jabar ji jabar ji am na ñoo xam ne tey jii du ma du ma wax ñëpp ñoo ah. bon jigéen ñëpp ñoo bon ah. ndax waaye am na jigéen ñoo xam ne seen jëkkër amul moyen bu bu war ah. mais tewu dañ li ñu am ñoom as néew dañ ciy jël di ci toppatoo seen jëkkër di ko ci defal lépp lu bëgg du ma du ma contre ñëpp ni ñoom li way am na ñoo xam ne seen jëkkër di leen di defal lépp guddeeg bëccëg mi ngi daw di xëy di liggéey di wàcc kooku bu ñëwee wan nga koo may jàmm bu ñëwee nga waaye da ngay gis ñoo xam dugg ci kër sa jabar bu toggee ca waañ ba sërëg tiset ba mu sol moom lay moom lay moom la lay jege xet di la bëgg a rey dëgg la léegi sëñ la Mouhamed Lamine loo xalaat ci li ñuy wax ni booba léegi jërëjëf sànq ba tey maa ngi dégg seen waxtaan mais day mel ni mm-hmm. am loo xamante ne dañ ko dencal la euh, seen mbokku jigéen seen mbokku jigéen yi parce que tey mm-hmm. nañ waxante dëgg uh-huh. am na loo ne xel mënu ko nangu dëgg la avant nga takk uh-huh. naa ne daan nga génn ak moom te si moom ay qualité yoo xamante ne uh-huh. daf sa biir kon tey nu mu mel yaakaar naa neexoon na la. neexoon na la kon doxaan boobu ngay def ji. ak non non d'accord kii euh, Samb d'accord suñu wax. bay ko àggale olof dafay wax ne. Uh-huh. ku ku ñuulul sa jëkkër yàq say. yàq say xale bu jigéen bi li nga ataaya toog na. say doom kon moom tamit foofu. sa ataaya baax na merci ndax moom si loolu. fii fii bàyyi ko mu continuer. dégg nga kon dégg nga ni mu waxee. jigéen ñi léegi nii jamono ji da ngay am sa faat yéen ñaan xoolal gisuma loo ko dul defal si àdduna mm-hmm. loo ko dul defal gisuma ko mais bu la xësee ba takk sëy looloo war a ji góor ñi gi gi bakkan jàppale ba su ko mënee am yow tamit vraiment daa da nga ko doon takk muy ngeen di déggoo di lii kooku rythme boobu bu ko continué woon ci sëy kon ku góor gi dugg fa ba bay seeti keneen dama ne fut si jigéen ñi la ñu wax ko ak ñu bañ nañ ko nangu fut bi ci ñun la nañ ko nangu loolu la nañ déglu sëy la bu nañ déglu sëy la bu bi si góor ñi la parce que ñoom doyluwuñu uh-huh. la uh-huh. la ñuy question la doylu du question la doylu bakkan jàmm la bëgg laa la wax su ko mënee am bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am yow resal sa ataaya rek ka fexe mu neex

man de aw ah. ma jëkkër. waaye man dëgg ma fi si la da nga may dégg. ñu joxe benn affaire. Ah. fekk kii dem di moo jéemul tane moo la mais ak ki réellement mënul gérer ba tax ku góor ki génn di doxaan. ku la jigéen ñi la. man de maa ngi nii aw ma jëkkër. non man de man damay damay damay damay damay damay damay damay damay damay damay damay damay dañuy ñëw wax la ni la maanaam yow yaa fi ne yaa fi ne mais alors que bu ñu demee ba ci biir gis na yow ne liyatoo neexatoo la. man ah. de maa ngi ci borom jabar man laa la la dóor duñ la uh-huh. bari sax duñ la ko woo te loo bëgg ñu desee ñëw ci ruq jox la ko nga buux uh-huh. dem sa yoon. man loolu laa ah, man ku fi topp tawul sa jë ku fi topp tawul sa dëkk ba mu ñëw si man ñaax na